ñi ngi yeesal nuyoo ak ziyaara ci weer wu tedd wii di weeru koor weer waa ngi dem muy gan gu tedd goo xam ne li mu indaale ci ay yiw ak i ngëneel su ko jaam yi xamoon dëgg-dëgg danañu mébét at mi yépp nekk weeru koor ñi ngi ñaan suñu borom bi di fadlihi wa juudihi wa karami mu boole ñu ci jaam yi nga xam ne su weer wii dem yàlla dana leen ci yërëm jéggal leen seeni bàkkaar goreel leen itam ci safara yàlla mën na ko yàlla nañ ko yàlla boole defal mu mel na nag ci waxtaan yi weesu ñu ngi doon waxtaane ci bàkkaar yi ñu wax ne bàkkaar yi dafa jara moytandiku ndax bàkkaar dana tëj wërsëg bàkkaar dana tëye taw bàkkaar dana gàttal fan bàkkaar dana tax nit wéradi ñu ne woon bàkkaar yi ñaari xeeti bàkkaar la am na ci bàkkaar yu ñu tudde ay bàkkaar yu ndaw am na ci bàkkaar yu ñu tudde bàkkaar yu mag sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ci benn xadis alsalawaatul xamsu waljumuatu ila aljumua wa ramadaanu ila ramadana مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر عليه الصلاة والسلام نينا جلي جروم أجمة بأجمة أجمة ويرو كور با ويرو كور دفاي فر بكاري فيك نيغي موي تانديكو بكار يو بمعنى نيت كي بو خيي جولي صبح يالا دوغال مو اي بكار يو bi neuf heures jotee wala dix heures midi dem ba une waxtu tag tisbaar jot mu jàpp julli bàkkaar yi mu defoon ci diggante julli suba ak bi muy julli tisbaar julli googu dafay effacer bàkkaar yi mu defoon fii deful bàkkaar bu mag noonu la koy toppe ba keroog muy julli gee kon mbokk yi bu ñu seetloo danañ xam ne yàlla ku yërëm jaam yi la mu ne itam boo jullee ajjuma ba ajjuma di ñëwaat loo fi def ci ay bàkkaar bu ajjuma ñëwaatee boo jullee yàlla daf la koy effacer su weeru koor ñëwee comme wi ñu toll nii yàlla baaxee la nga bokk ci ñi nangoo woor ba a bokk ci tappalekat yi ba a bokk ci ñiy làqatu di naan bañ bokk ci ñiy déclaré ay feebar yoo xam ne bii amul nga jaayanteeg yàlla xam ne fukki weer rekk la tey mu ngi nii di sori nga woor ko diggante bu su weer wowu paase ba ramadan di ñëwaat nga di ko wooraat diggante boobu ramadan bu ñëwee lépp lay effacé ba mu des bàkkaar yu mag yi loolu moo tax sëriñ bi ne kon fa taayana alayna alfaxsu an il kabair yépp dañ la koy jéggal ba mu des bàkkaar yu mag yi kon kilifa gi nee na jaadu na ñu gëstu lan mooy bàkkaar yu mag yi pour jullit ñi mën koo teet fa wajadna al ulamaa rahimahumullahu taala la ixtalafu fiiha boroom xam-xam yi wuute nañ ci kabaa'ir yi yan ak yan la ak ñaata la fa qiila hiya sab'un waxoon naa le ne am na ñu wax ne juróom ñaar la ndax sukkandiku ci xadiis bi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam dafa wax ne ijtanibu as-sab'a al-mubiqaat juróom-ñaar la lim ci xadis boobu te boo seetloo dana am beneen xadis buy ñëw ci kanam boo xam ne bi muy tudd akbarul kabaa'iri bàkkaar yu mag yi ba ca gën a mag gën caa bon ñett la ci indi ci xadis boobu waxtaju bi qawli nabiyi alayhi salaatu wassalaam ijtanibu as-sab'a al-mubiqaat ñoom ci juróom-ñaar yi sang bi tuddu ci hadith bi ci la ñu basé wu ba tax ñu ne bakkar yu mag juróom-ñaar la waaye sayyiduna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu nee na bàkkaar yu mag hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sabi juróom-ñaar fukk la gëna jege ci juróom-ñaar kilifa gi nag nee na ibnu abbas lii mu wax radiyallahu anhu wax na dëgg xadiis bi dafa ñëw pour wane rek ne ku def benn bàkkaar ci bàkkaar yu mag yi ah def nga njombe yàlla nañ ci yàlla boole musal moo tax ñu fas yéene ànd ak mbokk yi topp bàkkaar yu mag yi niñ leen ko waxe woon benn par benn bi nga xamante ne moo ci njëkk nag moo di ashirku billah bokkaale ak yàlla fa akbarul kabairi ashirku billahi taala kabair yi li ñuy bon bon ba ca féete kaw di indi merum yàlla moo di bokkaale ak yàlla bokkaale ak yàlla nag mbokk yi ñaari xeet la bi ci njëkk moo di jaam bi bàyyi fi yàlla mi nga xam ne moo ko bind bind asamaan yi bind suuf yi bind ndox bind jaww ji bind atmosphère bi bind li gis ak li gisul indi fi ay jumtukaay ci kaw suuf doomu aadama bokk ci mbindaafoon yi yàlla mujje bind ñëw nag ne ko suuf yow laa ko dénk inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insan kon doomu adama mooy xalifa ci kaw suuf moom la yàlla dénk suuf mu war a defar war a tabax moytandi ko yàq moytandi ko fitna doomu adama boobu nag yàlla ne ko comme que yow laa def xalifa li nekk ci kaw suuf yépp yow laa ko terale muy ndox mi muy ngelaw li muy feer bi muy bant yi ak lum mën a doon yow laa ko terale mbokk yi ndax kon bokk na ci lu xel mën a nangu yow ngay kilifa yàlla mujj laa bind dénk la àdduna bi ak li ci biiram lépp yow la ko yàlla terale ngay wàcce sa bopp di wàcce sa bopp ba dem fekk jumtukaay boo xam ne yàlla daf la ko terale pour nga mën a dund dund gu neex nga war koo jëfandikoo nga bàyyi ko fi yett ko teg ko di ko jaamu sooy tukki moom ngay tàggu booy takk soxna moom ngay tàggu booy def commerce moom ngay tàggu boo reyee sa gàtt war koo jox sa njaboot ñu war koo jëfandikoo nga jël gàtt ba jël ko tegal ko ko te moom munu koo lekk su poussière dale ci kawam doo ko mën a dindi mbokk yi loolu xel mu rafet nanguwu ko kon ashirku billah bokkaale yàlla dëgg-dëgg bi ci gën a mag ci ñaari xeet yi moo di an tajaala lillahi nidda nga jël leneen lu dul yàlla def ko muy égalu yàlla muy ndendam wa taabuda gayrahu nga bàyyi fi yàlla di ko jaamu moo xam loola aw doj la wala muy garab gooy jaamu walla kiy jaamu jant wala kiy jaamu weer wala nga jël nit ne yow di ko jaamu ak leneen loo mën a jaamu lu dul yàlla jël cër bi nga waroon a jox yàlla associé ko ak kooka mbokk yi yaa ngi bokkaale yàlla nañ ci yàlla boole musal te loolu bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw makka yàlla di ko yónni loolu la fekk waa makka di ci dund boo dikkee ci kaaba gi lu war a mat ñetti téeméeri yàlla ak juróom-benn fukk ñu ngi ko def ci kaaba gi ku ci nekk ak sa yàlla xabila bu nekk ak sa yàlla loolu mbokk yi xam ngeen ne fala ak dese dëgg dëgg dëgg nekk yàlla nañ ci yàlla boole musal moo tax yàlla nee na laqad xalaqna al insaana fii ahsani taqwim doomu aadama bind naa ko bind bi gën a rafet hëy a bi gën a rafet suura bi gën a rafet shakl bi gën a rafet ci laa bind doomu aadama thumma radadnaahu asfala saafiliin ñàkk xam boppam ak réere boppam ak bàyyi ma fi di jaamu leneen lu dul yàlla tax na mu wàcc di wàcc di wàcc ba àgg fa gën a suufe am na nag ñu yàlla seete illa alladina amanu wa amilu salihat lu dul ñi nga xam ne gëm nañu yàlla ba noppi di jëf lu baax kon doomu aadama jamono bu fi bàyyee suñu borom mi ko bind bind asamaan bind suuf bind ndox bind géej bind lum mën a doon jël doomu aadama teg ko ci kaw lépp wala qad karramna bani aadam wa xamalnaahum fi lbarri walbaxr wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila yàlla nee na maa teral doomu aadama may ko mu mën a wax mën a taxaw ak ñaari tànkam jub xocc mën a geestu defal ko xel may ko mémoire boo xam ne mën na cee takk lu bare bare bare bare bare loolu yàlla doomu aadama rek la ko defal ba noppi nag nee na ma wërsëgal ko xeeti wërsëg yoo xam ne kenn amu ko dul moom teg ko fu ma tegul kenn doomu aadama kon su fi bàyyee buur boobu dem di jaamu mbindaa foon ne moom mi ngi bokkale ak yàlla wa hada huwa shirkul akbar bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee fekk waa Màkka di ci dund mu ne leen bàyyi leen yàlla yu bari yi maanaam lii ngeen tudde ay yàlla di ko jaamu jël leen lépp ngeen teg ko fële te ngeen jaamu boroom asamaan ak suuf waa Quraysh bañ ne ko ñun ñi ngi jaamu ñetti téeméer yàlla ak juróom benn fukk sunuy soxla fajuwul nga bëgg ñoo indil benn yàlla lu cent 360 mënul ndax kenn dana ko man xam ngeen ne réer dëgg-dëgg foofu la toll ajaala al alihata ilahan wahidan inna hada la shay'un ujab ñu ne kii daal ci dëgg-dëgg daf ñoo bëgg a jaaxal yàlla yi mu bëgg ko def muy benn yàlla ma sami'na bi hada fi lmillati al axira in hada illa ixtilaq mosuñoo dégg lu mel nii lii daal daf ko inventé mais amul benn base boo xamante ne bi xel dana ko nangu fu mu ko teg kon mbokk yi bu ñu delloo ci alquranul karim yàlla mi ngi wax ñun nee na inna allaha laa yaxfiru an yushraka bi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha yàlla ngi wax ci alquran ne bàkkaar bu mën a doon lu mu rëy rëy su ko nit ki defee génnaale ko àdduna yàlla nee na mën naa ko jéggale ba mu des bokkaale ak yàlla dama leen di jox benn exemple rek mbokk yi yow bi tabax sa kër ba mu pare nga takk sa soxna indi ci kër gi yàlla baaxee la may la njaboot nga nekk ak ñoom ci kër gi nga wut sa ay surga ñu lay jàppale ñii ñi ngi ci waañ wi ñii ñi ngi ci póot mi ñii ñooy toppatoo kër gi ñooñu nga indi ci kër gi boo seetloo ci ñoom luy wane na ñoom wegguñu la nekkuñu ci sa waaw waxtu wala neex lañuy ñuy tërsi loo teg ñu jël ko boo leen nee togg leen ñu bañ nettoyé leen ñu bañ loo leen sant ñu bañ dana am benn bis nga woo leen réunion ba ñu ñëw nga ne leen kenn du ma yaakaar ba noppi yépp ma fii maa fii takk tubéy ku mu neex nga toog ku mu neexul nga génn ndegam yow yaa am sañ-sañu mën a commander sa kër lu fa neexul nga faj ko ba tax ba mu jaral la nga génne sax say doom yi bopp waxantuma la ak yàlla mi nga xam ne moo la bind bind kër gi bind asamaan ak suuf boo nekkul ci li ko neex jaaruloo ci waawam deug deug deug yang ngi jàddu yoon motax yalla neena bakkar na man na ko jéggale ba mu dess wutal ma associé am ko may bolel lolou mom du boko ko jéggal kenn moo ñu wara moy tuddu ko shirk yalla ngi waxat ci suratul luqman ci al hakim ba muy denk dom ja ya bunayya la tushrik billah yow sama ndob sopp la lol ma ngi lay ñaan maa ngi lay conseiller maa ngi lay dénk laa tushrik billaahi bul bokkaale ak yàlla bàyyil sa xel nga jox ko limu mom wetal ko xamne mo lay dundal mo lay ray mo lay wërsëgal mo lay xagn yàlla moy yëkkati yàlla moy danel yàlla moy joxe yàlla moy xagne mbokk yi tawhid dafa neex sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam fukki at ak ñett nekk na ko makk di xeex ak waa quraysh te lam ca jublu woon mooy fexe ba waa quraysh nangu ci seeni xol kalimata laa ilaha illa allah fa rafadat quraysh ndax ñoom xam nañu baatu laa ilaha illa allah lan lay firi baat bi soo ko xasee ba wax te muy dëgg ci yow nga tàqamti ko ko bannamti ko ko xam li muy tekki dëgg-dëgg mbokki dara ci aduna dootu la ébranler dootu la déranger da ngay xamne ne kenn neeku fi kudul yàlla ku ñu war a jaamu waaw maqamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ci fatiha lol lay symboliser iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maqamam moy tolloog maqamu la ilaha illa allah amul ben buur bu ñu war jaamu jaamu ga di indi njariñ ñàkk gaa jaamu di indi lor kudul yàlla soko xasse ba xam mbokki wallahi boo tëddee da ngay nelaw ndax daf lay wóor ne àdduna bi nekul ci loxol ma sàmb nekul ci loxol ma demb ken nako saytu ta moy suñu borom borom beut bu rëy bi nga xamne du nelaw hayyun qayyum mi ngi dundu dundu go xamne jele wo ko ci fenn dundu go xamne il est éternel kenen ku dul yàlla bis dana ma sa ñëw nga jóge fi wa kutibal maw kutibal mawtu ala al khalq fa kam falla min jayshin wa afna min duwal ay na namruudu ana kanaan ana ñi daan falaka folli ana gaañu baax ñi ana ana alayhi salaatu wassalaam ana mbokki yonentam yi ko fi jiitu woon ana suñu kilifa yu baax yu tedd yi fi nekkoon kenn par kenn yàlla di roppat bu loolu amee nag mbokk yi la yàlla waxoon sang bi ne ko waxal qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaatiya lillahi rabbil alamina jaamu yàlla gi may jaamu yàlla gàtt bi ma tiim di ko defar sama dund sama dee kenn moomu ko kudul suñu borom subhanahu wa taala la sharika la wa bidalika umirtu wa ana awwalul muslimina qul a gayra allahi abgi rabban wa huwa rabbu kulli shay ndax war naa fee bàyyi yàlla di wuti beneen yàlla boo xam ne bii mook mën a yem damay dund muy dund may dee muy dee may feebar muy feebar may lott muy lott may tële muy tële kooku du ma ko jébbal sama bopp la cheikhul xalifa waxoon radiallahu anhu kuy wéeru داغي سيتي غناو بروم داوي ما شاء الحاج مالك رضي الله عنه الهيه لا رب سواك فيرتجى امو في بنن بور بو في نيك بو ني ورا ياكار بودول يو فانك فاشل الحمد عند الخليقه مبوكي نانيو جانغا توحيد نانكو جانغال سونو نجابوت سونو بنتي مي سونو ريو مي دي سنغال اك يينن ريو يي ملني موم بوكالي بارينا في لول تيري يالا مومون ييب jaam ñaa ngi koy jéem a foqar ci loxoom di ko jox ñeneen ñu ko moomul wala di ko jox keneen ku ko moomul yàlla nañ ci yàlla boole musal te loolu la sang bi doon combattre diiru fukki at ak ñett mosul jubóog waa Quraysh ba keroog yàlla naan ko génnal Makka nga dem Bandiida ba muy génn ba ba muy àgg ma diina am na ci ñoo xam ne ci loolu lañu ñu dee ci lañu génn àdduna te ay mbokki sallallahu alayhi wa sallam la ñii di ay baayam ñii di ay nangam ñii di ay nangam jege woon ko lool waaye rek yàlla mayu leen xol bu ubbeeku bu nangu kalimata laa ilaha illallah ba ñoom ñëpp ñi ci ëpp ci kéeféer la ñu dee am na ñoo xam ne xasuwatu badr tey la fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci la xasuwatu badr al kubra amee woon ci la yàlla tàqale bayna al xaqi wal baatil diggante dëgg ak neen ci bis bi ci la ko yàlla taqale te booba jullit ñi ñi ngi néew bay bëgg a dee yéeféer yi am doole lool am kattan waaye terewul fa tabarakallahu yàlla may na leen ndam kon nañu nafaraat tawxiid moytundi ko bokkaale bu baax a baax a baax luqman alxakim loolu la wax doom ji yaa ya laa tushrik billah yow sama ndoom maa ngi lay dénk na nga moytundiku bokkaale inna shirka nekki bokkaale la zulmun azimun tooñ gu màgg la tooñ gu rëy la ku ko def sa digganteeg sa borom nga ko seqal yàlla waxaat ne innahu lii dëgg lii mbir tey mbir tey dëgg dëgg dëgg man yushrik billahi képp koo xam ne da ngay wutal yàlla associé jël lool yàlla di ko jox nit ne yow wala ngay jaamu xeer wala ngay jaamu bant wala ak kuur wala nag wala lum mën a doon nga di ko jaamu di bokkaaleeg yàlla faqad xarama allahu alayhi aljanna yàlla nee na araamal naa ci kooku aljanna wa mawaahu naar këram ëllëg moo di safara allahuma lu dul mu tuub bu tuubee avant muy génn àdduna yàlla moom nee na wa huwa alladi yaqbalu tawbata an ibaadi sama jaam lu tooñ bi rëy rëy bis bu demee ba yëg ne mi ngi ci njuumte mu ñëw daw wut ci ci man taxaw jéggulu dama koy daal di jéggal ndax man soxaruma bëgguma bëggul bëggum bëggaluma len lu len len metti jàmm rek la len bëggal ayat yi nga xamne ñoo ñëw ci shirk mbokk yi bari na lool ta waxna len modi akbarul kabair kep ko xamne faman ashraka billahi dafa de ci bokalé dafa bokalé yàlla thumma mata te tuubul ba génn àdduna fa huwa min asxaabin naari qataan nee na cëram mooy safara te waxuñu ko pour soxar mais yàlla moo ko waxal boppam kama anna man amana billahi wa mata muminan képp koo xam ne gëm na yàlla mu dee ci lislaam fa huwa min ashaabil jannati këram moo di aljanna kon mbokk yi nañu góorgóorlu la yàlla waxaat ci alquran ne yaa ayuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaati wala tamutunna illa wa antum muslimun yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm yàlla na ngeen ko ragal dëggi dëggi ragal te maa ngi leen di conseiller na ngeen ko bàyyi xel wala tamutunna bu leen génn àdduna mukk illa wa antum muslimuna lu dul da ngeen a deewaale ngëm loolu mbokk yi mooy bénéfice loolu mooy tono lu nit mën a am ci àdduna nay alal nay kër nay njaboot nay pouvoir lum mën a doon soo ko amee te gëmuloo yàlla dee ci kéeféer zéro lu nit ki mën a ñàkk ñàkkal ay yére ñàkkal kër de fanaan ci mbedd mi na la dépense jafe doonte nag yàlla nañ ci yàlla boole musal ñun ñëpp waaye fii yaa ngi ànd ak ngëm yàlla nekk ci li neex yàlla boo deewee itam mbokk yi taxe nga yàlla nañ yàlla bay saadata daarayni وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سانغ بوتيد بنينا كاي لين ما لين بأكبر الكبائر ما لين بكار يغنا ما نيت يون لوكو فقالوا بلى يا رسول الله صحابي نكو ان هكا يو رك لا نيو دغلو يو لا نيو صوب يا نيو غنال سونو جيم يا نيو غنال سونو نداي اك سونو باي يا نيو غنال سونو سخنا يا نيو غنال سونو دوم yow rek la ñuy déglu yaa rasulallah yow ndawal yàlla li fa qaala sallallahu alayhi wa sallam sang bi ne leen bàkkaar yépp bi ci gën a mag nga xam ne buñ doon lim kabaa'ir yi muy grand péché yi yële ya ca gën a féete kaw gën caa doy waar bi ci njëkk moo di al ishraaku billahi bokkaale ak yàlla comme niñ ko waxee woon léegi bi ci tegu moo di wa uquuqul walidayni xale boo xam ne dafa ingrat jëme ko ci pappaam ak yaayam xale buy dënge ñaari way juram njureel ni mu mettee rawatina yaay ëmb la juróom-ñeenti weer ba keroog mu lay mucc nampal ba nga fer muy toppatoo ngay jóg di daanu boo feebaree du nelaw nga dema dem ba màgg ba tekki war koo taxawu war koo ñeewante war koo yërëm nga di ko dënge di ko ñàkke teggin am na ci ñoo xam ne sax duñ ci yem dañ ciy boole di génne seen yaay ci kër gi am na ñoo xam ne dañ ciy boole di dóor am na ñoo xam ne dañ ciy boole di xas am na ci ñoo xam ne sax dañuy dem ba jël bakkanu seeni wayjur alayhi salaatu wasalaam nee na bàkkaar boobu bokk na ci bàkkaar yi gën a mag moo tax il faut que ñu yar xale yi am na lu xale yi nekkee ñàkk xam la parents yi itam dañuy gaaw a démissionné ci seen njaboot dañu yar xale yi jàngal leen xale nag waxoon naa leen boo ko dee yar da koy gën a yaru jàngal ko diine jàngal ko comportement bi jullit war a am ci digganteem ak boroomam digganteem ak jëmmam digganteem ak ay waajuram digganteem ak ay dëkkandoom digganteem ak ay xaritam ak ay collaborateur am fa tabarakallahu bu ñetteel bi تفك بيكو سانغ بي وخ عليه الصلاه والسلام دا فسولو وون واي دا فا جوك توك موني الا وقول زور الا وشهاده الزور بوك نا سي بكار يي غنا ماك لي بارول مانسونجير فن وخ لو دول دغ وشهاده الزور اك فو تيموانياج تا يوي مبوك يي ياكار نانا سونو بنتي نيت ني دافاتو نكو موي دارا فن اك سيد لو خامتاني بي دو دغ ngir alalu ngir alalu aduna wala rek cër boy am mu jaral lako ko te fekk yaa def bakkar bi gën a mag ci bakkar yi yàlla nañ ci yàlla boole musal dafa daf koy répéter mom sallallahu alayhi wa sallam nee fa ma zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakat nan ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur na ngeen moytu ndiko les paroles mensongères na ngeen moytu ndiko le faux témoignage daf koy répété ba saxaaba yi ne ak a neexoon mu noppi kon mbokk yi incha allahu tabaraka wa taala ci émission bii di ñëw danañu gën a leeral bokkaale ak yàlla wax nañu xaaj bu njëkk bi ñu indi xaaju bu ñaareel bi yàlla nañ yàlla may dégg ak topp hada wa billahi tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu الله الله الله الله